alhamdulilahi rabbil alamin wa sallallahu wa sallam ala nabina muhammad wa alihi wa sahbihi ajmain uh, mbokk jullit yi asalaamualeykum wa rahmatullahi wa barakaatu mbokk yi nekk Europe ñu nekk bitim réew ñu nekk fépp ci àdduna bi ak suñu waa réew ñu ngi leen di nuyu di ñaan yàlla weeru koor wi ñu nekk tey jii defe naa ñoo ngi toll ci ñaar fukki fan ak juróom-ñaar ci weeru koor yi mi ngi ñu fekk nii ci dëkk bii nga xamante ni ngoo Ngocéem lañ koy wax ci biir Tataguine muy dëkk boo xamante ni dañu fee ñëwoon war fee def waxtaan ak waa dëkk bi jox leen iftaar loo xamante ni moom la ñuy dimbalikoo ci koor gi su ko defee mbokk yi nga xamante ni ñoom ñooy jël seen alal ko def ci yu mel nii ñu ngi leen di ñaanal yàlla di ko ñaanal bekk jullit waaye mu am rek lu ma bëgg a fàttali sam bopp di ko fàttali association islamique yi ak ñi nga xam ni dañoo yore seen alal di dimbale maa ngi leen di dénk di dénk sam bopp ñu ragal yàlla ndax ndog yi ñuy joxe ndakaaru baax na de dimbal yi ñuy def ndakaaru baax na waaye àll bi ñoo ko gën a soxla àll bi tey gis ngeen yéen daanaka kër yi amuñu lu ñu lekk amuñu lu ñu naan amuñ ci luñ def boo xoolee àll bi yëpp dëkk yi ko wër ni yëpp ay dëkk yu wow la man li ma jaaxal mooy naka ngay jëlee lu tolloog iftaar lu tolloog deux cent cinquante mille trois cent mille cinq cent mille jox ko benn jàkka waa jàkka boobu ci Ndakaar ñu jël loolu def ko seen iftaar nga xamante ne iftaar yooyu néew ma bon na baax na mais ay xale ay xale ñoo fay toog Ndakaaru soxlawuñu iftaar. borom kër yëpp am nañu lu ñu dogoo am nañu lu ñu lekk am nañu lu ñu naan dëkk yaa ngi nii tey xool leen xool leen liñ fi joxe bariwul tey ñëpp dajaloo nañ ngir lan dañu ko soxla jigéen ñaa ngi ne toog tey ban masala lañ fi doon waxtaanee mooy dëkk bi nar a tas ci wàllu dëmm ay nit di jiiñante dëmm di jiiñante yeneen yu mel noonu ay ñu war a dugg ci àll bi dimbale nit ñi woo leen jottali leen kàddu yàlla jottali leen kàddu yonent bi leeral leen defe naa yéen ñi nekk ci biir jumaa bi yëpp gis jigéen ñi góor ñi jàpp naa ni yëg ngeen ni ñii lii ñu leen waxal nii indi woon na fi jaxas jaxas waaye commencé naa indi leer leer ci ñoom ndax ñu bëri ci ñoom tey xamuñ ko woon xoola dëkk bi ñu wër nii nga xamante ni dëkk ba la ci biir da ngay dugg ci biir dëkk boobu fekk ñoo xamante ni Euh, waa ji nee na ma oustaz suñu dëkk bi dañuy woor mais pour lu ñu lekk sax dafay nekk problème lu ñu ndogoo dafay nekk problème kafe bu ñu naan dafay nekk problème nga dem ci dëkk yu ko wër noonu yow nga nekk ndakaaru di jël alal di ko joxe ci jàkka yi di jël alal di ko joxe ci jumaa yi di ko joxe ci yéen bu te mu mën a ñëw ci àll bi man de bañu ma ñu jox waa Ndakaaru mais àll bi ñu décentraliser daawa bi moom moo ëpp solo ndax am na ci dëkku àll yi ñoo xamante ni au secours la ñuy wax soxla nañ nawet baa ngi nii tey dañoo ak bi ñuy ak seen kanam lay doog commencé taw suuf saa ngi nii xool ko mi ngi nii commencé naa taw ñu ngi nii war a jëm ñetti weeru nawet di bay suñu amut lu ñu lekk amut lu ñu naan fan lañ jëm xale yu ndaw yi ah jigéen ñi góor ñi amuñu la fan lañ jëm kon loolu ñun ñoo leen war a dimbale tey xool leen tey ji jàkka ji wax nañ ba ay jaamu yàlla dimbale leen tabaxal leen ko teen yi noonu lu mel noonu la ñu bëgg jullit ñëpp génn seen loxo nañu jógal seen bopp waxuma man nañu ma jox waxuma loolu déedéet mais ku am te mën a génn sa bopp génneel nga joxe su fekkee yaakaar nga ni boo ñu joxee ñu joxeel la ñu nit danañu la joxeel mais dëkku àll yi daal li ma yëg moom mooy soxla nañ ñoom it na ñu bàyyi xel lu mel noonu iftaaru saa imin yi ñuy jël di ko sotti biir ndakaaru dafa doy dafa doy sëkk nañ leen góor góor dugg ci àll bi jox ko ñoo xamante ne soxla nañ ko am nañ ci itte lool ñu leen ko joxee ñoom danañ ko jëriñoo ndax mag ñaa ngi nii xoola màggat yi tool nii di ñëw ci lu mel nii loolu mënoo ko am Dakar Dakar mënoo fa def iftaar ndax iftaar ay maire yu tool nii ñëw ay paa yu tool foo ko mën amee mënoo ko am Dakar Dakar tëralee iftaar nit ñi dañuy liggéey kenn du bàyyi kafeem këram mburum këram ndox mu seddum këram ñëw di toog ci sa jàkk pour nga di ko nga di ko jox lu mu lekk am na ko këram am na ko kon ñëwal ci dëkku àll yi ñu ko soxla ñu jox leen ko loolu ci laay woo sam bopp di ci woo mbokk jullit yëpp deuxièmement mooy waxuma ngir frustré benn jamiya waxuma ngir merloo kenn ku koy def mais bépp jam jamiya boo xamante ne yaa ngi jóg ci wàllu dimbale ay nit am na foo ko mën a def am na ñoo ko mën a jox laajal yoon boobu ñu wan la ko te ngeen wàññi bu baax a baax dama bëggoon ne la ñuy jox waa Dakar nañ leen ko diminuer ñetteel bi ñu jël ko jox ko waa àll bi ñoom ñoo ko gën a soxla loolu de laa ne dinaa ko jottali ñu déglu ko. te bàyyi ko xel àll baa ngi nii yëpp buñ ko waree fu ñu dugg loolu lañ fay fekk ñu amul lu ñu lekk ñu amul lu ñu naan kon ñun ñoo leen mën a dimbale koor gaa ngi nii di jeex mais ndimbal du jeex ko am sa ndimbal boo ko tey jii kër yi boo duggoon ci kër kër gu nekk nga jox leen saako ceeb may nga leen 15 jours lu ñu lekk kër gu nekk nga may leen benn benn bidon diwlin saako ceeb ñaata lay jar mille francs bidon diwlin li mu jar quinze mille francs muy trente mille nga tegaleen ci suukar moins de cinquante mille francs nga ñëw dimbalee ko benn kër yaa ngi nekk Europe mun nga ko yaa ngi nekk Dakar mun nga ko commerçant mën nga ko oustaz nga buy liggéey mën nga ko am comme xaalis nga mun nga ko kon nañ leen décentraliser daawa bi nañ leen xettale ñi nekk ci dëkk àll yi mooy al iraasatul iraasa ayyuhal ixwa nañ leen dimbale nit ñi nekk ci àll bi yàlla ñu yàlla defal dégg ak topp defal leen ko wasalaamu aleykum wa rahmatullahi wa barakaatuhu